élection législative 2024 17 novembre 2024 mën nañ ne si la élection yi doon am waaye li nga xamante moo ko jiitoon doon campagne yi président Pastef les patriotes di Ousmane Sonko mobilisation boo xamante ni bu extraordinaire bu amul fenn la daan amal surtout fi nga xamante ni mooy fépp fu muy jaar si réew mi di Sénégal moo xam mu nekkoon région wala mu nekk département wala sa commune wala village yi ñëpp ñooy dagg topp ko waaye loolu nag yëpp nag mën nañu la nekkoon ci ginnaaw di ko wane ba nit ñi di ko gis di journaliste yi wala sax ñi nga xamante ñoo nekkoon ci communication digitale am bi loolu nag léegi loo xamante ni lu ama am solo la di wane li nga xamante ni mooy xew ci ginnaaw mbër mi résultat yi nga xamante ni moo di provisoire yi sax mën nañ ne tey jii la war a génn bu 16h jotee fi nga xamante ni moo di sa tribunal bu Ndakaaru Ndiaye jël Diop résultat yooyu nag yaakaar naa ne ñëpp xam nañ jamono ji nag fa nga xamante fa la victoire bi féete ndax victoire bi nag ana naka la demee ñaata député la ñu am jamono ji mooy li nga xamante moom la patriote yi di xaar rawat na ñi nga xamante ñoo ànd ak Ousmane euh, Sonko. li ñu gën a gën a gën a jëppee Macky Sall mooy le fait que mu nangoo nekk tête li su élection yi ba pare wàcc si wul campagne. di WhatsApp. di WhatsApp ñu dañoo jàpp ne maa ngi ko doon wax la dernière fois daf leen a jaxase. dinaa ko man jàpp naa ne président Macky Sall quoi man jàpp naa ne man loolu bokk na ci li nga xamante nii moo gën a tax sax mu nekk position bi mu nekk nii quoi. parce que jàpp naa ne bu fekkoon ne wàccoon na ci terrain bi camp battre campagne comme ni ko Ousmane Sonko defee nii am naa yaakaar ne résultat yi mën naa bañ a demee nii mais am naa yaakaar ne tamit konoon du du sedd ci yaramam comme nu yaramam seddee nii ndax jàpp naa ne konoon xolam dina bon lool fu mu jaar fu ne dinañ ko yuuxoo buñ ko sànniwul xeer sax moom na sant yàlla quoi. ndax li nga xamante moom la def fii si di Sénégal waaye am naa yaakaar ne konoon résultat yi nu mu demee nii am naa yaakaar ne konoon mën na ko bañ a demee konoon mën naa ëpp mën naa am sax au moins bokk benn vingt député bokk jox gars yi des ñu séddoo ko mais nekk nekk nekk bitim de di campagne par WhatsApp. loolu moom Sénégal yi wax gaa yi tëj frontière yi ñenn ñi bëgg a dem Maroc fekk ko foofu mënuñu ko. Mhm. <laughs> mais loolu pour man motif valable la pour nga di di nga fa dugg même bu nekkee ne waa Pastef ubbiwuñu la porte en tant que transhumant mais di nga wane ne <laughs> ñoom nga faral suba buñ lay baal ñu baal la suba buñ lay eh, am nuñ lay considéré ñu considéré la ko mais doo topp ci ginnaaw Macky Sall di ko baatral campagne. Hmm. mu toog Maroc. waaw te jàpp naa ne euh, euh, bokk na ci également ci li gën a tax à Fatick mu perte ko. <laughs> son fief boo xamante ni depuis des années moom moo koy gagné gis nañu ne instant yi nii daanaka. Euh, euh, euh, comment dire fu fu ñu doon considéré comme. parce que trois élections yi si ginnaaw nii mën nañu ma ko doon gagné Fatick. Pastef moo fa gagné. Mhm. mais leneen li nga xamante ni moo ci gën am solo mooy ñoom mën nga wax ne am nañu manquement yi ñoom mën ngaa wax ne wuñu nii mais bul ma a ñàkk bul mas a négliger mais la force de Pastef xam nga déjà. Euh, Ousmane Sonko am na euh, à un moment campagne bu mu def sax mënoon na ko si ñàkk a fay. Mhm. bien sûr jàpp naa ne sénégalais jox bi ñu jox bopp bi ñu ko jox bopp lu leer la lu dëggu la ñoom. Mhm. te gëm naa ne su wàccul woon dem campagne. Mhm. du ma ne dina am lu mu am de mais bu dee day néew tamit. lu tuuti la koy gën a néew. mais malgré ça nga dem yow dëkk boo xamante nii da ngay agsi. gis des milliers et des milliers de jeunes ñu lay accueillir et ce n'est pas par hasard gars yi naan da di xërëm kenn mënta yaay parce que effectivement ñooy jommi parce que fu mu dem noonu la fay demee nit ñi dañ fay fay del te ñooñu di génn mais jàpp naa ne surtout ñenn ñi nga xamante ni dañ daan toog bàyyi deux heures trois heures du matin. déjà surtout la ñu faral. moom surtout waa Matam sax quoi. surtout waa Matam Saint-Louis googu noonu nga xamante maanaam ba 3 heures du matin 4 heures du matin nit ñi dañoo nekkoon si mbedd bi di teerlu ki nga xamante moo di le président Pastef le patriote Ousmane Sonko campagne ren bi mën nañ ne li fi am wala campagne bu ren bu élection présidentielle ak législative yi li fi am musugul am si politique quoi mais toujours nag day wane que ne maanaam sénégalais jamono ji yeewu nañu te bëgg nañ tamit benn changement boo xamante ni politique bi fi nekkoon dañoo bëgg mu jugee fi carrément dañoo bëgg politique boo xamante bu naturel lay doon benn politicien du ñëw sama gox wala sama dëkk di ma toucher xaalis comme ça may ut mbooloo di ko génneel quoi di wax loo xamante ni amul alors que bu élection yi jotee du ma ko wooteel wala élection yi bu jotee bu ma ko wootelee tamit maanaam sama poche tax ma wooteel ko mais njëriñu réew mi njëriñu intérêt général bi taxul ma wooteel ko quoi te loolu nag mën nañ ne dafa war a jeex si réew mi nag jamono ñu toll nii parce que ñun sonn nañ si loolu noonu. maanaam bu ñëw tàllal leen loxo sax Euh, région yi yëpp yi nga xamante ni def na ko ak. mënoon naa dem caravane rek dem nga xamante ni def na ko. fu nekk mu bañ faa def discours chaque fois mu foo xamante ni nit ñi moom la ñu àndal. Hmm? mu toog jël temps di leen di expliquer pendant des minutes et des minutes lan la nar ci dëkk boobu. ñu hmm. ñu koy déglu scrupuleusement loolu di wane lan di wane ne nit ñi ànd ak man doy. Hmm. mais ñu xam fan laa bëgg jëm ak ñoom. moo ëpp importance mais loolu bu nekkee ne considération boobu moom daf ko am ci ñoom nga xamante ni moom la ñu faral ba pare bu waxul am ñoom sax xëy na ñoom lay voté mais mu jaral ko ay xaaju guddi muy enchaîner ay kilomètres et des kilomètres pour taxaw ak ñoom waxtaan ak ñoom expliquer leen réellement lan la bëgg mais loolu day non seulement day gën a yokk motivation yi nga xamante ni ñoom la àndal moo tax may expliquer comme quoi que ne taux de participation bi <laughs> bi ñu gisee ne le doxul ci la opposants yi waroon na naka la ñuy ba génnee ci seen nit ñi te ñu xam ne ñooñu ñi nga xamante ni ñoo leen waroon a wooteel ñoo toog seen kër yi bañ a génn parce que xam nañ ne maanaam bëgguñoo yàq seen énergie. bëgg ñu yàq seen yéen bëgg ñu yàq seen passe bi di dem di rek seen passe di dem di woot ni parce que xam nañu à tout moment wala toujours Ousmane Sonko moo nekk foofu en favori toujours Ousmane Sonko moo leen di gagné. kon ñam du leen daral ñuy dagg dara di dem di woote ji koo xamante ni maanaam jàpp nañ xam nañ ne xel que ne ki ñuy woote nii du gañe du am dara. Pastef la àndal am yéeneel voté ko ñooñu quel ko soit euh, euh, euh, les circonstances. même bu doon taw sax gëm naa ne doon nañu dem voté ji. maa la ko wax élection yi passé gis nga ne daanaka ci koor ci biir. koor la nekkoon ci koor gi la dafa jaraloon Sénégalais yi ñu dem ñàkkante ko ci bureau de vote yi. Mhm. Euh, ba ba ba ba voté. mais Mame Birame apport nii transhumant yi ñi nga xam ne nii bi élection yi jotee gis nañ leen ñu bàbbee ku jógee ci beneen camp ñëw ci Pastef pour yow amoon na am na lu mu apporté tey ci victoire Pastef. non non mu aw aw aw man de man en tout cas man gisuma ko. Si comparé ele euh, peut-être résultat si on koy comparé ak élection euh, présidentielle passée, passé da ngay pourcentage bi day gën a mhm. mais loolu li ko la touche personnelle de Ousmane Sonko déjà élection présidentielle 10 jours de campagne la ñu amoon une vingtaine def toutes les régions mais également c'est Ousmane Sonko en tant que euh, leader en tant que tête de moom moo doon dem di briguer le suffrage des sénégalais. bul fàtte ñaari campagne yëpp am. parce que bokkuloon ak campagne bi nga xamante ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ko doon defal parce que bii boppam la doon campagnal mais bële boppam la doon campagnal waaye tamit en plus président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye la doon campagnal tamit quoi parce que ñaari campagne yi du benn. par local bi te boobu comme soo noonu la di élection locale loolu à Ziguinchor euh, euh, élection législative yi Ousmane Sonko il a battu campagne un peu partout au Sénégal té pas de candidat élection locale 2022 pas de candidat mais à Ziguinchor nga gis ne kon 2019 le gëj a def élection en tant que Ousmane Sonko muy wut les les suffrages des Sénégalais de manière générale. Mm-hmm. lolu jàpp naa ne bokk na ci li gëna tax voix yu yokku par rapport ak la yi passé mm-hmm. ko ñenn ñi

ak campagne bi nga xamante ni def na ko. Mhm. moom moo tax voix yi yokkoo noonu. Mhm. léegi nga ñëw à Dakar mais bi résultat yi génnee ñu ne xaaral ma xoolaat. ci par rapport ak. Euh, maanaam ni mu def gars yi dafa doy waar de. Sonko ni mu def gars yi dafa doy waar dafa ñaaw ñaaw boo xamante maanaam ñoom euh, waroon nañu ñoom gàcce. waroon nañu am kersa tamit maanaam. si li nga xamante ni moo di élection yi ni mu demee nii quoi. Pastef am na deux cent vingt deux mille deux cent trente un cent vingt deux mille deux cent trente et hmm? sàmm sa kàddu bi ci topp am quatre mille quatre cent trente maanaam. plus de la moitié. ñi nga xamante ñooy wax ñooy chef de l' opposition lañ nekk. <laughs> non non plus du double euh, le Pastef am par rapport ak sàmm sa kàddu. maanaam boo jëlee sàmm sa kàddu li mu am nga boole ko takkuwal lu mu am. Mhm. cent mille voix daanaka ci lay ci ci côté yooyu lay nekk. parce que boo leen boole quoi boo leen boo boolee ñaari kii. deux cent vingt deux mille yi nga xamante ni Pastef am na ko. Mhm. ça veut dire que ne compétition mosul am Dakar <laughs> compétition daanaka euh, euh, euh, peut-être bu ñu nee am na c'est avant élection yi la amoon. nga xamanteni ni ñenn ñi ñu ngi doon surestimer seen bopp. Mhm. wala boog observateurs yi. Mhm. ak ñi nga xamanteni ni ñooy commentaire actualité bi. Mhm. jàppee leen jox leen force boo xamante ni amuñu ko. mais déjà soo gisee Ousmane Sonko mobilisation yi nga xamante ne nii na ko ci région yëpp. mais rawatina à Dakar. mais di nga posé wu la question ñii ñuy génn. top Ousmane Sonko toppoon ko en 2022 mille loolu. manifesté wu ci bureau de vote hmm? mhm. ñu toppoon ko également deux mille boobu ci local yi mu manifesté wu ci bureau de vote yi. je sais pas ndax yaa ngi fàttaliku ou Abba Mbaye dañ koo fal euh, député. Mhm. ko fa jaaroo <laughs> très très bien donc pour dire que. mais moom carrément dafa bokk doon ci ci ci campagne Sàmm sa kàddu bi wala moom dafa maanaam dafa démissionné carrément ci parti Khalifa Sall parce que moom Khalifa Sall man ren. dama la déggul benn yoon koo xamante ni def nañ fa campagne ndax dañoo seen seen seen seen kii bi comment dirais-je encore seen coalition xalifa président bi ndax dafa dugguloon ci biir sàmm sa kàddu bi wala nu mu demee noonu ba ñoom kenn gisul leen ci fi nga xamante moo ci ah, ah, moom ci boppam implication ci campagne bi en tant que candidat dafa am lu bëri loo xamante ni joué ko ci. Mm-hmm. te boo jëlee par exemple région yi nga. xamante ne mais bul nag de. 22 yi maanaam euh, yeewi euh, askan moo leen faloon. te yeewi askan woo mën nañu Ousmane Sonko ko bootoon. nga calculer ko ci diggante Podor jàmm ak njëriñ moo ko gañee bu Amadou Ba ak Kanel boo jëlee score yi score yi foofu soo jëlee par exemple Matam maanaam euh, takku wallu am na foofu cinquante cinq mille ak quelque voix. mais ce que vous voyez passé en 17 000 voix. Mhm. Maintenant, contrairement à ce que Dakar, vous savez que l'écart, vous dépasser les 100 000 voix. Vous pouvez vous de 30 000 voix, dépassé ou 40 000. Et il faut que les seules zones, vous savez que l'opposition est gagnée. Mmh. ba ndax comprendre non seulement du score fleuve ci côté yi opposition bi gagné mais bu dee pouvoir bi moo leen di gagné score fleuve lay doon boo jëlee par exemple Mbacké hmm, nga xamante ni nii euh, euh, victoire Pastef bi kenn du ci discuté. non Cheikh Thioro Mbacké jàmbaar la Cheikh jàmbaar la boo jëlee euh, total bi amaguma chiffre yi mais boo jëlee total bi da ngay gis ne. le dañuy ëppale ay il y euh, voix. Mhm. ñuy topp ci seen ginnaaw. loolu lan vais vous expliquer nga jël tamit ci analyse résultat yi euh, ak les foyers religieux au Sénégal. Mhm. Hmm? Mhm. boo dem mën nga ci yokk sax pire euh, mais foofu yëpp dafa opposition bi surtout Touba nga xamante ni hmm, ñi fa nekkoon opposition ci liñ doon campagne mooy Cheikh Oumar Diagne mu ngi pale lu Cheikh Oumar Diagne ngi def pale ba léegi mbirum Cheikh Oumar Diagne moom xam naa ni sax hmm, xëy na peut être dinañ si ñëwaat mais démb yooyu na si yàbbi ndax démb dañ ko invité fi nga xamante ni moo di ci 2STV di Astou Ndione yéen yàbbi ci li nga xamante moo di këru tarixe mais état bi ñu bari ñu féetee fi nga xamante moo di dëkk bu ba du Touba wala ñu nekk ci këru këri yi ñu leen di wax tarixe yi ñu bari dañoo mere état bi ak grâce ak nga xamante ni moo di Cheikh Omar Diagne ak kàddu yi nga xamante ni yëgati na ko yëg na ko di nga teg ci yeenu këru këri diine yi loolu nag mën nañ ni métti na leen lool lool lool mais jàpp naa ne ak li nga xamante ni Cheikh Omar Diagne wax na ko Pastef bu fekkee ne perte na ay voix fi nga xamante ni mooy dëkk bu sell boobu di Touba yaakaar naa ne loolu moo tax mais man nañ ne sax feeñul parce que làpp yi nga xamante ni Pastef làpp na ko fa opposition bi kon jàpp naa làpp yi euh, mën naa bañ a demee noonu bu fekkoon ne maanaam murit yëpp ñëpp ànd nañu ne ki nga xamante moo di Cheikh Omar Diagne li mu wax nekk nañ leen moom nee dafay présenté pour xeexal Serigne Touba parce que Cheikh Omar Diagne mi ngi pale Cheikh Oumar Diagne mi ngi pare ñoom foofu lañ ko kaloon léegi nga gis ne bu nekkoon population Touba yi déglu woon nañ ñooñu wala mere nañu pouvoir bi parce que Cheikh Oumar Diagne mi ngi pare da doon fay ci résultat yi. mais malheureusement pour ñoom daanaka liñ leen dooree à Mbacké dooree wuñ leen ko sax à Diourbel à à <laughs> est-ce que à Touba ak euh, kaddu yi nga xam ne ni moom la yeneen ci euh, opposition bi doon yëkkati est-ce que du ci am facteur mais finalement on a vu. mais ña doon campagne ña doon campagne bu ñu pare ñu ko doon campagne te dëkk Touba di woowee seen bopp ay sëriñ. Hmm? mais bi élection yi passé yemuñu ci dóor leen sax ñoom dañ ne dañ leen a trahir. <coughs> <coughs> <coughs> ne seen électeurs yi dañ leen parce que dañoo xëy suba ba ngoon jot di yóbbu ay électeurs yaakaar ne électeurs ñoom la ñuy voté te xam naa boo déggee boobu Pastef la ñu voté. mooy li ma doon wax léegi quoi mooy que ne maanaam actuellement nii réew mi yooyu noonu maanaam euh, kii yooyu noonu moo fi war a jeex maanaam politiciens yooyu moo fi war a jeex ñi nga xamante ni maanaam. dañuy yaakaar ne seen poste rek moo leen mën a moo leen may askan bi moo leen war a may li nga xamante ni moo di ay wot moo leen war a may li nga xamante moo di ay voix te Sénégal yi nag jamono ji yeewu nañu façon yeewu goo xamante ni jamono boobu nekkatuñu ca te jàpp naa ne sa carte sa carte bi dafa nekk baat boo xamante ni bu dëgër këcc la si yow te boo ko xasee ba joxe mën nañ ne joxe nga sam ngor sa ngor nag maanaam ak ngoru keneen nga jaay ko si xaalis boo xamante ni mën nañ si Ben fan ko koy lekk mu jeex yaakaar naa ne loolu dara ko jarul kon mbokkante ne tey loolu lañ leen àndiloon di jox leen dig daje ci kanam tuuti incha allah ak beneen vidéo jaa ngeen jëf ñu ngeen di loo xel bu baax tamit li nga xamante ni mooy di résultat yi lu war a tukkee tey ci tribunal bu Ndakaar bu 16h jotee.